naan bikum Ousmane Sonko yoon fa koo ñaari weeru kaso yu mu du tëdd ba pare fa a fay Mame Mbaye Niang ñaar téeméeri million comme ndàmpaay Sud Quotidien ne lii moo tukkee bu ca xatte procès Mame mbay Niang ak Ousmane Sonko ca tribunal ba yéene kaayu tey di ñu nettali la xamoon ca tribunal ba ak naka lañ gisee dogalu xatte bi si Sud Quotidien ne man dafaa gis ne xatte bi xatte buy xandi dal ak jàmm ci réew mi la ndax ñaari wàll yëpp xatte bi fa leen a arrangé bu dee Mame mbay Niang la koo ndàmp ñaar téeméeri million te teg nañ ay daan ci ki ko tuuma beneen wàll ga tamit Ousmane Sonko donte teg nañ ko ay daan ñaari weer yum du tëdd kaso daan yooyu terewul moom Ousmane Sonko mën naa nekk candidat 2024 maanaam ay droit ñàkkut ko kon moom loolu arrangé na ko vox populi dëggal ko na su fekkoon fañ koo daan ñetti weeru kaso yu tëdd ak juróom benn weeru kaso yum du tëdd konoon du mën a bokk 24 heures yéen a kaay ne Sonko kay fa rëcc de enquête yéen a kaay ne xàttekat surtout nag Mame Mbaye suukaru korom si fa duun lool ñaat téeméeri million ndax fa ñoo yàq sa de rek allié ka neex te mooy yéene kaay na ko foo fàtte Ousmane Sonko mënoon na fee doxee ñàkk mën a bokk ci wote 2024 yi te loolu amut bés bi yéene kaay ne Sonko am na defet ay defet bi defet bu baax la l'évidence yéene kaay ne attekat bi atte démb mu yaxam kayta fa xaaj yëfee ca digg ba le quotidien yéene kaay na leen hée waaye Sonko ba léegi mu ngi sursi de vox populi na ko faay nga wax gis nga procureur bi nee na fi mu toll ni ki tey dootuñ ko may dara exclusif yéene kaay ne attention fexeel ba bul def maanaam nañ ma attewaat piège su boobaa a bëri te su boobaa doo bokk ci wote yi yi daal li ñu doon def lépp lépp lépp ndeke fii la ñu mujj lii daal lañ def damp mambay ñaa sonko teg nañ la ay daan waaye fa bokk ah ndakaaru njaay nekk dëkk bu dee démb dara doxut tribune yéen a kaay mel ni ku naan xaw ma kan waaye procureur moom fay def na ndax lañ atte doyul leen ko yéen a mel ni ku naan ko xattekat bi li mu def nii fa bëgg réew mi ànd ak dal fitna ji fi am jeex oowaat Ousmane Sonko nag naan fañ koy xàttewaat ah l'observateur ne appel daal ku ko ci mënti def su boobaa yëf yi fañ koy xàttewaat de léeg si ko yéen kaay na ko faa ci yokkal Mame Mbaye Niang ma ngay xalaat déposé waat beneen plainte ci kaw Ousmane Sonko ak docteur Samir wàllu usage de faux maanaam ca certificat médical ba yéen a kaay bi ne démb nag attekat bi waroon a atte Ousmane Sonko ak Mame Mbaye fa mujj bàyyi muy Mouhamed Diop ci la ko kayta remplacé waa Benno Bokk Yaakaar yi ñoom ña ngay rafetlu xàtteb démb bi ne lii fay wane ne yoon Sénégal fa moom seen bopp wuuteeg ñi nga xam ne fañ doon wax naan lu neex Macky Sall rek lay yi patriotes yi farandoor Ousmane Sonko yi mel ni ku naan leen du ngeen bàyyi seen waxu caaxaan-caaxaan yooyu yéen waa bennoo yi Sénégal yépp xam nañ ni yoon di doxee ci réew mi kumba xam nday kumba xamul nday te démb dogalu àtte bi gàcce la te ñun rafetluñ ko ndax àq ak yelleefu Ousmane Sonko fañ ko xoo xañ ñun kontaanuñ ci àtte bi de pour muy clair ay Sonko dana bokk ci wote yi tax ñuy kontaan naka tëb di dal déedéet doxalinu àtte bi nam tëddee ak la ca jaarul yoon yépp ñun koo ñaawlu maître Ciré Clédor Ly bokk ci awakaay Ousmane Sonko feelu leen ci enquête yéen kaay na démb kay li am ca àtte ba fa ñaaw ci ëtt àtte kaay yi moo tax ñun sax leen fa ñu def loo xam ne dara du ci yoon avocat yi Mame Mbaye Niang tamit ne leen ñu nit fa ñoo ñaawlu seen waa ji Ousmane Sonko mauvaise foi bi nga xam ne doxal na ko ci àtte bi yoor yoor yéen kaay ne àtteb démb bi kay fa garaaw fa ñaaw patriote yi ci vox populi ne àttekat yi ay complice lañ te liy gàcce la avocat Ousmane Sonko bi nga xam ne fañ koo dàq bi mu wàccee aéroport na ko ñibbil muy tubaab ba xuwaan ma ngay nettali nañ ko dàqee juróom-ñaari mu défendre client am populi le quotidien yéen a kaay mel ni ko naan ko hee yow xuwaan moom la wax ak li tax ñu refule la dàq la kaj sa biti génn la Sénégal jëwriñ ji ñu dénk réew mi leeral na ko Antoine Diome te mooy ab post bind boo bind ci sa compte internet bi di dal ci kaw njiitëram Macky Sall looloo tax avocat Sonko ya na ñun fa ñaawlu dàq gu ngeen dàq xuwaan mambay ñaan ak am tubaab ba moom ñëw na te bi atte bi pare nee na atte bi wane na Sonko doon tuumal ne dara amut ci Assane Dioma Ndiaye ci 24 heures mel ni ku naan ko ah defal ndànk Mame Mbaye benn attekat setalut la attekat bi li mu def mooy Sonko la teg ay daan ndax lim la tuumal andiwut ci ay firnde waaye loolu tekkiwut ne lam la tuumal am na wala amut déedéet te loolu mooy problème bi gis nga mbiru Prodac bi fañ ko war a xàtte mu leer sénégalais xam ne Mame def na wala defut su ko defee yëf yi jeex waaye romb fi problème bi gën a mag mooy la xaalisu Prodac bi dugg dem di attee la gën ndaw mooy yaa ko tuumal ne am na wala amut ba tax Birahim Seck feelu ko ci waa Grand gis nga mbiru Prodac bi xaajut bay jeex ndax daraa ci leer dafa war a leer nag xaalisu sénégalais yi la te ay milliards yu bari la la taxoon a jóg xaalis ba fan la dugg xanamu fu mu jaar lii yëpp fañ ko war a toj ba mu leer nañ regard yéene kaay na leen maam bay ñaa moom sax tey fay jano taskatu xibaar yi leer la neen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne sa Seck nee na moom d'accordut ci ñetteelu mandat yoor yoor yéene kaay ñu ko xamal ca Amérique la ko waxee nag bés bi yéene kaay ne hee idi kay foo xuri njiit réew Macky Sall l'évidence yéene na wax ji nee ba mu amoon ca jamonoy Ablaye ci ñetteelu mandat taxawaay boobu tey la ko gën a am d'accordut ñu fiy def ñetteelu mandat nee na Macky njiitu réew mi ñaar rek doy na li war a doy nag dakk mooy taskatu xibaar yi nga xam ne fañ leen di agressé ak bundu xatal saa bu ñaxtu yi amee moo xam mu bàyyi ko ci takk der yi wala fu munti bàyyi ko mbootaay taskatu xibaar yi ñuy wax kap fañ koo ñaawlu ma ca l'évidence yéen kaay le soleil yéen kaay di ñu xamal ñaar téeméer ak benn ci ay milliards na ko ci UEMOA libération di ñu xamal ne douane bu Kër Massar nga xam ne fañ leen di wàññi ci ay millions yu bari àdduna bi moom cheikh islaam islam alhaaji ibrahima ñes Baye ñes tey l'observateur fa dem seeti ji dëkk ba nga xam ne fa la faydu ba tàmbalee muy koosi yenekaay bi yegg ba fa ñuy wax bustaanul aarifina mooy tool barab ba nga xam ne fa la Baye ñes tàggatee ay taalibam yu njëkk kàngamu muqaddamam yi fa la leen defaree ñoomit ñu mujj di defar ay doomu aadama àdduna di dox ba tey jii képp kuñ ne muqaddamu Baye ñes nga sa wareef mooy defar taalibe bi xommat ko jëmale ko ci yàlla xiir ko ci liggéey jaamu yàlla def lu baax bàyyi safaan wa ndax taalibe Baye ñes noonu la war a mel